asalaamaaleykum mbokk internet 313 digital comme ni ñu koy amalee saa su nekk di waxtaanee actualité actualité bi li si gën a fës bokk na si li nga xamante ni moo di accident bi nga xamante ni moo am foofu noonu si yoonu Louga bi euh, si fu ñuy wax arrondissement bu ñuy wax Sakal foofu noonu am na benn accident bu ñu fa noté bu doy waar boo xamante ni euh, lu ko waral bokk na si nee nañ benn camion moo fa laalee ak benn bis bis boo xam ne da doon jéem a dévier li nga xam ne moo di charrette euh, Ndiaga Ndiaye bi nga xamante moo doon da doon jéem a dégg dégg li nga xamante ni moo di charrette mbaam bi Euh, noonu la def ba laalee ak ki nga xam moo di camion bi mu jur li nga xamante ni tolluñ si ay dix neuf décès ak vingt quatre blessés graves mu nekk loo xamante ni lu doy waar la euh, taxoon nañu ñëw ba fii si Grand Dakar am si en face stade Demba Diop am koo xamante ni moom témoin la am na lu mu jot a fekkee si duñ def lu dul laaj ko mu décrire ñu lan la jot a fekkee si boobu la xew-xew salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Boy tout juste ma leeral comme li ma li nga ma laaj nii ma yàlla yemale ma ci bon xëy na am na benn fausse information bu si am parce que du sereetu mbaam mbaam la ci boppam mbaam bu taxaw ci digg tëli bi c'est-à-dire que bi minicar bi ñëwee bi 500 yi bi ñëwee ba tolloog moom mi ngi koy jéem a dévier mais bi mu toll ci war ko dévier ci la mbaam yi yëngatu maanaam luy continuer ak moom quoi instant moom fi mu koy moytoo peut-être perte na perte na perte na contrôle bi si la jàkkaarloo ko la jàkkaarloo camion bi ñun si liñ si yam parce que moom moo nekkoon sama kanam avant moom ñaari oto yu ndaw ñoo nekkoon sama kanam man longoor bi loolu laa seen quoi parce que mbaam bee ngi si digg tali bi bi waaye ñëwee ba tolloog moom si la mbaam bi doo ko def effort xam mbaam en général boo ko jegee mu def mouvement boobu mu def dajeg waa ji di ko moytu ba instant boobu si la perte contrôle dajeg camion bi ñëw dëgg yàlla noon la affaire bi dem mu nekk nag loo xam si sant yàlla lu métti la nag lu métti man maa ngi si yem ak ñi ma àndal ci biir oto bi ñu nekk ay doomu aadama yu jàmbaare parce que dañ si yem juste rek ñu duraate wàcc maak sama ñi ma àndal ci biir oto bi ñu dugg jéem a sauver doomu aadama yi mais ni ñu tëddee moo xawoon a moo xawoon a métti nettali si doomu adama parce que bon xale yaa ngi si suuf du yooxu nit ñaa ngi si kaw mais soog bi daal loo si mënti dégg mooy metti na trop trop trop trop. yow tey jii nii en tant que chauffeur bu fan yi gis nañ ne accident yi dafa xaw a bëri ba nga gisee soog boobu si sa kanam lan la def si yow. waaw waaw waaw comme doomu yëpp rek boo boo si yemee nag da ngay dana trop mais. man daal li ma si mënta xam ba xam ko daal saay grand mooy damaa jàpp ne xëy na peut-être bii moom comme yeneen yi fi jaar ak ndogul yàlla gars yi ñu ngi jël ay mesures naan ay pono ay oto yeeg nangam mais nag des fois jur gi indi yenn erreur yoo xam si jar na ñu si ñu càmbaraat ko xool ko parce que mbaam la nag wax dëgg fa yàlla si li ma teg sama bët mbaam la mbaam mi si digg tali bi waa ji avant mu koy gis bon wàcc na code bi yem ci moom dévier na ko dévier bi baaxul laal na ko camion bi ñoo dal ci kawam mënu ma nag waxaat leen loo xam ci loolu fekk euh, yeneen yi si des nag moom xëy na peut-être am na ñu ma gën a supérieur gën xam ci loolu man cee détaillé man li ma si man détaillé un seul mooy gars yi daal war nañ di waxtaan waxtaan xëy na peut li ma si xaw yaakaar tuuti rek mooy cinq heures bi jógandoo boobu daal moom am na si gars yoo xam si moom duñu mën a maîtriser yenn ki yooyu daal man daal yaak da ngay kon yow lu nga ragal ne euh, dafa yaakaar da nga yaakaar ne kon condition yi nga xamante ni état mu ngi koy mu ngi koy jéem a imposer transporteurs yi yaakaar nga ne moom la ñu war a saytu. jar na waxtaan daal jar na waxtaan daal ñoom daal nan xool ñi nga xam si seen xam-xam ci loolu ñoom ñu siy faral di toog ak ñoom di waxtaan man daal loolu laa jàpp na xëy na peut-être bu si gars yi góorgóorloo hmm, daal saay wat gaal yëgoo nit ñi nañuy waxtaan. waaw fan yii dañoo gis ne transport mi ngi nekk si ay crise crise yooyu nekkut lu ñuy nameeku lu bari ci Sénégal surtout benn weer ñu gis tey ñaari sog yoo xamante ni sog yu rek waaw ku aye wal sa moomee Sénégal moom lépp ay crise la moom lépp lépp xëy na nag gars yi bon dafa gën a fës léegi jamono yu ñu rek mais Sénégal moom lépp ay crise la moom xëy na peut-être gars yi nag dañ toll seen moment nag seen temps fort yàlla leen yàlla suturaal suturaal safoor yi suturaal nu ñun ñëpp suturaal clients yi parce que métti bi du ci du ci du ci du ci du ci safoor ci dong même clients yi bakkan dafa fort ci doomu aadama grand bakkan dafa yéeme daal par exemple si li ma yaakaar nit ma xam waroo yeewu sa kër bàyyi sa njaboot ñu tëdd nga téye sa bërëbu liggéeyukaay toog parce que man dama jàpp ne oto bureau la yeb si ay doomu aadama fas yéene jëm pour rey seen yéene daal du ay rey doomu aadama parce que des fois ñooy yem ci yenn sog ay safoor ñooy wàcc nangu dugg ci biir oto yi parce que sànq rek bon bi yemee sog bi am na ñoo xam dañuy taxaw nangu wunu xool dugg ci biir ku si mën na sama genre xëy na yàlla mën nañu may boobu xool nga dugg génne ay doomu aadama am na ñoo xam ci dana dugg ci biir oto bi gis yenn sog yi nangootuñu leen xool ay safoor rek laay gis ñooy wàcc di jéem a génne doomu aadama yi kon bu ñu bëggee jël lépp tekk safoor yi daal vraiment. kon yow suñ dëggee bu baax yow am na ñoo doon jénne yow si biir. waaw waaw waaw vraiment maag clients yi dëgg fa yàlla jéem nañ pexe bu ne mën def jéem nañ ko mais am na loo xam ci gis ñi kaw xëy na peut parce que soog bi ni mu demee bi camion bi mbëkkee kaar bi même côté bi mu ko mbëkkee bu mu daanoo nga doomu aadama yu tuuru noonu bon ñi suuf moo doon kaa bi parce que soog côté bi mu mbëkkee soog bi noonu doomu aadama yi boo xoolee ñi si ëpp ñi si dee moo ñu boo déggee ay yu ndaw nekk suuf du yooxu ak loo loo kii loo kii daal daa jéem moo doon sunu parce que ñun xale mu la na ci benn xale boo xam ne yàlla def na bi ñu ko génnee sax dafa daw dugg àll bi sama mbokk chauffeur bi moo daw topp ko ci biir àll bi ba for ko man lu xaw lu xaw a départ. est-ce que mën nga ñoo wax carrément parce que dañoo dégg ñaari wax ñu ne euh, sab bi ay 6 heures la ñu ne ay 5 heures. mi ngi am envers de 6 heures moins 17 mu ngi am ay vers de 6 heures moins 17 heure boobu daal laa yàq heure boobu la am sax ay 6 heures moins 17 yooyu la am 5 quarante 43 minutes parce que man bi ma nee takk wàcc sama téléphone bi ngi woon sama kaw dama ko jël dugal suuf kaw mais ma xoolaale naa heure bi moment boobu la am. tey jii gis nañ sa yére mi ngi xaw a taq deret est-ce que mën nañ njott ne lu nga doon aider blessé yi. waaw la loolu la loolu mënu si ñàkk parce que boo nekkee di si yoon di dem moom lu la si dal rek da nga xam ne loolu moo si dal bon boo yeewoo bokkoo ci mbir mi mais daa si daa si lii dana la si fekk lii dana la duggoon sël la pour jéem a sëbe ay doomu aadama ba taqee yii moom garaaw après da dem boo mënee jënd beneen yére nga jënd ko wala bon nga xool noo def am na beneen yére boo xam sa bëgg ma ko teg sama kaw boobu moom moo gën a toog mais tuba tey jii nii yow en tant que dégg en tant que transporteur gis nañ tey jii nii euh, ñu bëri nguur gi ak transporteurs yi ñu ngi nekk si euh, xiiro boo xamante ni xaw na doy waar boo xamante ni tôt ou tard population bi ñoo si jooy léegi yow yow tey jii lan nga xalaat parce que tey suba incha allah le transporteur yi dañu war a grève te grève boo xamante ni euh, fas yéene nañ ko décréter ba heure bu leen neex joxe wuñ àpp mais ñoom daal lu ñu décidé mooy gannaaw bi nga xam ne état bi yokk na essence ak gasoil ñoom lu ñu décidé lenn la mooy que ni ñoom suba incha allah dañuy décréter grève boo xamante ni du am limite. waaw xam nga comme que man bokk ma ci branche yi ñi nga xam si ñooy responsable syndicat yi xëy na peut ñoom ñoo xooloon lu mu doon waxtaan seen biir jubawuñu si man daal li ma si gën a mën a yokk comme sama xam-xam daal mooy na gars yi di jiital waxtaan boo xoolee doomu aadama yi fii ñi fi néew doole te soxla oto yi dafay bare tout sauf que daal bu comme sama xam-xam bokkul ci ay. gasoil ak ay ainsi de suite na moom vraiment métti na torop torop torop loo daan jënd treize mille cent franc léegi nga koy jënd douze mille cent franc peut-être bon quinze mille cent franc waaw quinze mille cent franc métti na daal mais na gars yi di. loolu tamit tax na ba ñi nga xamante ni ñoo ñoo ñooy dawal tata yi ñoom tamit organisé nañ nee nañ tamit ñoom dañuy yokk seen i paas ku leer na la fii Dakar ku fi ñëw faaw nga yéeg tata wala parce que moyens yi demeewul noonu loo xalaat si paas boobu ñu nar a ah xëy na peut ñoom dañu xool seen nafaka li ñu daan am amatuñ ko wala du leen arrangé nguur gi moom tam mi ngi xool intérêt ñeeri xool intérêt de toute la façon man dama bëgg. na ah, moom sama xam xëy na peut-être bon ñoom ñoo yor doole ji ñoo yor décision yi ñoo yor mais nag ñoom war na ñuy xool ci ginnaaw di xool jaamu yàlla yi parce que joomaat mi sonn nañ de. ma si accident bi mu nekk actualité yow yan yaakaar lan lan nga yaakaar ne moo sabab boobu la accident. Euh, euh, ab yar man daal bëgg naa gars yi di jiital yar di xool ni daal ñi ngay yab sa yaay ngi si sa papa ngi si sa doom a ngi si da ngay xool exemple comme ñi nga bàyyi sa kër rek te jii man daal vraiment bëgg naa ko toog ci oto di dawal daal nga xool ni nga def sa bopp ni daal sa njaboot nga yor bon yàlla nag moom mooy dogal soog moom man dama jàpp ne xëy na ci mbir yàlla rek parce que man mii di wax a yow bon mosuma yor oto soge mais yem naa ci ay sog ay plusieurs fois xam yàlla natt na ma ci ay gaal jéem a jéem a tukki ainsi gis naa lu ne mais daal suma ma sañoon daal vraiment gars yi ñu. gis nañ fan yi souvent da ngay gis benn oto boo xamante ni benn chauffeur rek moo ko yar wala benn apprenti moo siy des di dawante ak moom est-ce que tamit newu ne manqué na nelaw wala seen dañu fatigue moo leen di sonn ba ñu yenn causé yenn accident. waaw mën na ne mën na ne loolu moom li nga wax mën na ne mais nag ku si nekk yaa xam sa programme noo noo noo loo waxanteeg ak sa patron ak loo jëflanteeg ak sa patron waaye lu si mënta xew daal yow nit ki nga xam si yow yaa toog ci oto bi ci machine bi war nga xam loo mën war nga xam loo mënul boo gëmamtoo war nga xam nga xool si digganteeg sa yàlla boo gëmamtoo bu la alal jaral nga gëmamtu di di di dawal parce que man daf may dal souvent nga jógee Saint-Louis jëm dakaar man moom saa yi nelaw moom dama koo bëgg man moom vraiment nelaw dama koo bëgg bon ki nga xam si nag moom yeewul ci gëmmamtu di dawal ak oto misiba yi nekk ci oto. mais am na si ñenn ñoo xamante ni code de la route tamit respecté wuñu ko xamuñ sax lan mooy code de la route ñoom dañuy ñëw dañuy jox leen oto rek ñu dem dawal. waaw mooy ñàkk xam bi rek ak ñàkk éducation bi rek ak défaillants yi bare rek yooyu yëpp ay nguur gi taxawal na ay branches yoo xam ci war nañ koy mën a. suñu kàddu gu mujj tey jii ñu lay laaj yow en tant que transporteur yow boo doon ñaan nguur gi ngir accident yi ñu jël si mesure yenn yenn kàddu nga leen mooy daal nguur gi bu ñuy ci yenn affaire wala di jël yenn mesures yi ñuy waxtaan ak experts yi nga xam si seen xam-xam màcc na ci loolu nañuy faral di di farataal waxtaan daal farataal waxtaan ñi nga xam si seen xalaat màcc na ci loolu. te bañ të tëju rek di jël yenn décisions yi xam ci ñoom dama jàpp nañ sam peut-être seen dundin ak dundin doomu aadama yi peut-être nit nit rek la mais xëy na ñoom yàlla may na leen moyen yoo xam ci yenn déplacement yi yomb si ñoom kon buñ bëggee jël yenn décisions yi man daal jàpp naa ni moom doxul surtout surtout grand cinq heures du matin bi